وبعدها التقينا بالعديد من الأخوة تمهيدا للقاء الشيخ المنتقى ñëw ziare Touba julee fi ajuma ci wetu mbokkam xaritam di alxalifa al cheikh al muntaxa wala Mouhamadul Muntaxa Mbàkke waaye nag avant muy ñëw fi tam nee na mi ngi leen di xamal ni jaar na Masalikul Jinaan dem na visiter ko fekk ko wax dëgg yàlla mu nekk réalisation bu rëy bu mag a mag a mag mu ni moom gëm na ni bu fekkul fekkante ni Masaalikul Jinaan nekkul ni moo jàkk ji gën a mag ci Afrique tamit bokk na ci jàkk yi gën a mag yi ëpp solo vraiment ci Afrique noire fii ba mu fa jógee nag la daal di ñëw tuubaa nee bi mu ñëwee rencontré na ay mbokk yu am solo ay mbokk jullitam ay mbokk taalibe yoo xamante ne wax dëgg yàlla nañu bu baax baax a baax a baax ci yombal giseem ak Cheikh euh, Mouhamadul Mountakha ji ti jiital ki nga xamante ni mooy Cheikh Souaïbou Mbacké ma de Cheikh Souaïbou Mountakha ak Cheikh Abdou Khadir Mbacke bi nga xamante ni moom mooy li ñu tuddee Hamzatul Wasl moo dox ci diggante ambassade bi ak Touba. nee na daal euh, tànk yi tànki mbokk la tànki feddali feddali kóllëre goo xamante ni am na diggante le royaume d'Arabie Saoudite ak Sénégal certes waaye nag diggante tuuba ci boppam ak Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawara loolu ci noonu la demee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ci loolu tam la ñu waxtaan seen waxtaan yëpp. ci arab lañ ko def ñoom ñaar waaye lépp lépp ci mbokkoo gu yàgg gi ak euh, jëmmal gi nga xamante ni moom la fi jëmmal ki nga xamante ni mooy le serviteur de la sainte mosquée du roi Salman Ben Abdul Aziz mu ni loolu moom la yëg moom la wax xalifa bi nee na koy jaar naa Masaalikul naan gis naa ni wax dëgg yàlla euh, jàkka ji jàkka ji doy na waar taar ba foo ko takk passé na ko. Euh, sëriñ bi daf koo sant bu baax a baax sant itam kilifaam yi nga xamante ni bii ñoom la teewal ci Touba tey jii te ñoo nekk ci jiitu mooy almalik Salman di buuru euh, buuru euh, Arabie Saoudite sëriñ bi bég bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ne bi am na ko tey jii def na ko ngir ñëw waxtaan ak moom ci loo xam ne lépp itam ci day dellu rek ci njariñul jullit ñi dellu ci jàmmi àdduna dellu ci euh, loo xam ne mooy gën a dëgëral al uxuwal islaamiya gi nga xamante ne bi dox na ci diggante jullit ñëpp te Touba am ci place ci àdduna bi ci alalamul islami monde islamique bi place boo xam ne kenn nattabliwu ko kon nag euh, su fekkente ne bi kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réewum Arabie Saoudite seen xel ak seen yitte dañu ko def ci Touba ba tànn ku mel ne moom mii nga xamante ni moo leen fi teewal teewal leen rek ci Sénégal waaye teewal leen ci réew yu bari ci Afrique moom mii moo ko yor kon euh, yitte jooju bu ñu ko defee ñëw ci moom sëriñ bi bëgg na ci sant na ci bu baax kàddu yooyu nga xamne mom la serigne bi yëkëti itam lu ko jitu ki nga xamanteni moy porte parole du cheikh mohammed al basir euh ibnu serigne Abdul khadir mom itam feddliwaat wat nako bu baax ci kanamam wat tuuti rek ci digënté relation bu rafet bi nga xamne ne muy diggante bu rafet bi nga xamne naka jëk ci taarix yag na dox ci digënté euh al mamlaka al arabia saoudia ak Sénégal rawati na nak digënté Touba ak Sénégal euh defena ne ñu bari ci ñi fi teew umpalewuñ ne bu yagul rek ayat yu néew ci ginnaaw buuru Arabie Saoudite sàkk woon na ci xalif général mu tànn ab délégation yebal ko fa boobu ki nga xam ne mooy euh, porte parole xalif général des mourides di Serigne Bassirou Abdoul Khadir moo jiite woon délégation boobu bi ñu demee itam ñu jox wàccuwaay bu wér Touba jox ko euh, ci ci fànn yëpp rek ci diine jox ko ko ci jëflante jox ko ci doxin wu rafet kon daal ci tënk rek Serigne bi bëgg na lool ci gan gi nga xamante ne bi am na ko tey di ko sargal bu baax a baax a baax